laata bisimilah. ok bisimilah merci voilà ñëpp xam nañ ne màggal gi fi mu toll nii daanaka mooy euh, débat wu murit yëpp. absolument kuy wax rek da naan sama yitte la 18 safar mooy suñu yitte ñun ñëpp. taalibe Sëriñ Tuubaa yi du coup sëriñ bi nag dafa am ay ndigal yoo xamante ne ci ginnaaw daf ko joxe woon muy li nga xamante ne dafa tere ay cheveux naturel ak ay mèche ak ay solin yoo xam ne dafa yiwadi solin yu yiwadi yi sax yàgg nañ ko faa sole ak xeesal bi. Mm. yàgg nañ yàgg nañ ko faa tere. parce que ci année yii yëpp ñu weesu boo rombee ci jumaa ji sol yenn uh, yére yi dóor sax daanaka dinañ la ko xaw a def dañ koy tere mais comme rek dañ koy jël uh, comparé ko ak problème bi nga xamante ne moom mooy problème mu école bi fi amoon ci affaire muuraay yi comme li ma doon wax barki démb rek ku moom sa dëkk lu la neex nga fay tere. sëriñ bi moom moom dëkkam. Touba li muy rëy rëy titre foncier la am ku fa jënd kër turu Cheikh Amadou Bamba moo ciy nekk bugg fa lii de ku fay dem defal di nga xamante ne moom lañ bëgg xam naa aussi boo gisee li tax mu sonj si loolu surtout suñu mbokku jigéen yi ñu bëri buñ ne dañuy dem màggal tuubaa defuñ fa dara lu méngoo ak dem màggal yi sañse moo leen fay yóbbu foo def naka sudul noonu su ma nee naka sudul noonu waxeewu ko sax ci anam bi nga xamante ne dafa leer mais naka sudul noonu mooy nan da ngay dem Touba am fa benn 10 jours boo xamante ne sa jëb yi doo ko këpp si suuf doo jàng ci li nga xamante ne mooy xasida yi doo def li nga xamante ne mooy sa jaamu yàlla même bu fekkee ne mënoo jàng parce que c'est pas donné à n'importe kii nga mën a ubbi téere ne yaa ngi jàng ku ko suñu borom may na ko sante bu wér ku ko mënul it du si sa yaafu si sa dara être suñu borom moo la ko mënalul wala say waajur jàngaluñ la ko mais ku moom dëkkam ne la lii bu ma ko fa def te loo xamante ne boo ko si defee ay daan yu bëri mën nañ la mën na la see fekk bu ko def te Baay Faal yi dañoo pare ku ñu romb nga def cheveux naturel sa bopp bi gaw ma ne sax dinañ ko teppi rek wat sa watee ah, euh, xaj na ci wala ñu jàppale dóor la ma nga sonn ndax ñoom ndigal rek la ñuy wëyee bu weesoo loolu Touba aussi ñi nga xam ne dañ fay dem di yóbbu ay xale dañoo war a veiller ci li nga xamante ne moom mooy xale

ñëw di dugg di màggal si jour boobu damaa taxaw di jooy sama yaram dafa daw mhm. nga xamante ne lii Serigne Touba moo ko mën parce que moom moo woote nga gis leen ak seen laxasaay yi ñu taxaw seen sikkar yi ñoom ñëpp nduroole takk seen ay af mais affaire bu rafetee noonu comme yàlla nag bu la lee leen nii ba borom dëkk ba ne bugguma lii bu ko fa def mèche ku ko mënti bàyyi même bu dul màggal tu déjà yàq xaalis la da ngay gis boo tiiree mu rafet te ñun jigéen ñi xamuñu lu ñu dal dañuy jël suñu benn 200 200000 lekk ñu naan jël ko jëndee ko benn cheveux naturel daal di toog jàpp si yàlla <laughs> man loolu xaw ma lan la te nag ñëpp ñoo koy def ñëpp la de am na ñoo xamante ne fi mu toll nii tere nañ leen ko mais dinañ ko def kenn mënu lañ see tere bu ñu ñëwee ci maladie yi maladie yu mel noonu en général xale yi lay gën a dal parce que mag ñi am na ñoo xamante ne dinañ jéem di raxasu xam li ñuy lekk ak fi ñuy teg seen tànk mais da nga gis ay Touba boo fa xasee ba dem tout le monde est free da ngay gis dañuy jël xale yi bàyyi leen ñuy génn di dugg ko génn poussière bi mën na leen a jàpp surtout li nga xamante ne chaque jour bu ñu jugee màggal chaque année taux de choléra bi dafay gën a bëri ndax lan manque de propreté bi am foofu d'hygiène bi te c'est normal nit dëkk boo xamante ne ñëpp a fay tase poussière bi déjà lekk yi foo romb ci mbedd bi ñu ngi jël ay lekk bu ñu lekkee ba suur au lieu sax ñu jéem a xam ci ban anam lañ koy defaree ñu ngi ko jël def ko ci mbedd bi am na kër yoo xamante ne aussi dañuy am ay problème de toilette loolu aussi dafay indi li nga xamante ne moom mooy certaines maladies yi nii ku si am sa doom booy dem na nga koo jar na boo ko mën a wuteel keneen koo kenn koo xamante ne dafay veiller ci sécurité xale bi ngeen di raxas loxo xale yi ñun si suñu bopp ñuy raxas loxo xale yi ba pare aussi li nga xamante ne moom mooy bernde yi ñuy defar ñu moytu di jël ay fruits de mer di ko jël di ko yóbbu biir Touba. Mm-hmm. parce que fruits de mer ñëpp xam nañ ne déjà bu fanaanee dafay indi intoxication alimentaire. rawatina nag Touba dafay tàng tàngaay bu anormal boo xamante ne déjà courant bi sax du stable. Uh-huh. frigo yi tout le temps da ngay gis ay coupure dafay am wala ay baisse de tension parce que dëkk bi ñëppay ñëwandoo ñi daan tëj seen kër yi dañuy ñëw bu ko defee ñëpp buñ taalandoowee yenn appareil yi. courant boobu noonu du ko mën a. du ko mën a du ko mën a attan même même période yooyu SONES ak eh, Sénélec. Mhm. dañu teg foofu ay groupes électrogènes pour vraiment déployer moyens yu doy waar. si mais ba tey du doy. mais tamit ñi parce que léegi kër goo dugg biir Touba ay concurrence dañ ko def bu ñu dressé seen table da ngay foog ne yaa ngi ci benn restaurant de la place wala hôtel de luxe boo xamante ne. xam lu baax rek xam lu baax. Mhm. mais yooyu nag loo koy def def ba nga xamante ne da am ay invité mën nga berneel nit ñi li ko dalee si ginaax ba si gëlem te. doo indil nit ñi ay problème mais lii di fruit de mer ku ko moytuwul xamoo nan nga koy toggee jël ko di ko jox nit ñi ci période màggal intoxication alimentaire dinañ ko am dëgg la dañ ko moytu te tuuba ku fa am intoxication alimentaire boo sàggantuwul tuuti ci kàttanu yàlla juróom-ñaari mètre per gal la lay jëndal yo si dañ koy wax parce que tuuba aal dafa tàng hôpitaux yi dafay fees te am na yenn maladie yoo xamante ne bu la dalee balaa ngay dem ba ci hôpitaux yi di rang wala dara ñu lay consulter rek yow foofu lune mën na la ci lu ne mën fekk te soo fa sax circulation bi day doy waar si ak yenn jus yi nga xam yoon du fa am am na euh, koñ yoo xamante ne boo amul laisser passer doo fa aw te du ñëpp ñoo ñoo mën a am laisser passer il faut nga bokk ci yenn famille yi wala nga am tuuti bras long pour ñu mën la ko mën ñu mën la te loo am am laisser passer am na foo xamante ne boo fa duggee sa laisser passer bi ça sert à rien mhm. di nga nekk ci kër bi comme tout le monde parce que nit ñi aussi duñ la may nga jàll yéen ñëpp yéen a yaakaar mhm. voilà du coup lekk yi nañ ko xoolaat li nga xamante ne ne mooy jus yi am na tamit yenn jus yoo xamante ne soo ko naanee dafay forox ay problème gastrique la lay indil mhm. ak yu ni yu ni mel màggal gi daal mi ngi ñëw ku mën boo demee na nga jaamu yàlla berndeel nit ñi te lépp li nga xamante ne surtout sëriñ bi tere na ko fa nañ ko fa bàyyi mhm. ndax wax nañ ko ñoom seen biir déjà ndege mbàkke mbàkke yi ñoo ko arrêté mhm. kon ñun ñi nga xamante ne dañoo dem dong di yaa yaandi ji war nañ ko mën a arrêté loolu ngay tëjee euh, laar yi. dina jafe daal ah, dina jafe mais mayte fii tout est difficile boo bëggee ku bëgg dara da ngay daal di def dara. ñun jigéen ñi dañoo bëri. non non non c'est que xam nga lu tax xam nga lu tax du du jafe mayte parce que comme li ko laar yi waxee c'est-à-dire que soo duggee kër jàmbur da ngay topp chartam règlement am. waaw loolu mooy yoon. loolu soo ko defulee lu la si dal sa affaire la parce que ñun daal loolu la ñu mën a wax mooy alerte. Mm, si mais am na ñoo xamante ne fi mu toll nii jigéen ñi ñëpp ay perruque la ñu daal di commencer koy ñawlu ne bu ñu nekkee si seen biir kër yi dañuy takk seen ay perruque mhm suñu génnee daal di koy euh, dindi daal di def seen foulard. Mhm. mais kan moo la ne mënuñoo jékki-jékki am ñoo xam ne dañuy dugg si biir kër yi ah. de toute façon même buñ la fekkoon ba sa biir néeg buñ ko tuddee violation de domicile parce que lii dañ la ko tere mhm. bu ko fa def luñ la léegi sax musóor léegi dañoo rafet. léegi nit ñi ay musóor rafet la def seen bopp yi léegi toi personnellement mën nga tagalu benn tagalu boo xam te ne ànd naag yëre tubaab ànd naag yëre olof ànd naag yëre lépp déjà tagalu yëre olof la gën a àndal donc imagine toi nga foo xam ne yow leer na la ne yëre olof ngay sol ba ba ngay jóge foofu mais defal sa tagalu bu rafet noo ko munti tagalee rek yow l'essentiel mooy na nga ci sentir sa bopp rek et que mu rafet. tubul tooñ voilà te te du tax sa bopp dina féex parce que greffage yi dafa tàng. nañu waxante dëgg comme li muy wax sànq Touba dafa tàng nga nar fa teg greffage yi tàngaay dina la rey waxatuma laaj ñàkk gi bopp bu nar a xeeñ. kenn dootul amati jàmm mu ngi koy fi mu ne nii moom am nga sax booy tooñ da tooñ koo xamante ne boo ko tooñee mu baal la mais am na ñoo boo leen tooñee daar daar lañ koy lijjanti lan la wax murit ndiga allah wala ma ko ku kuñ si jox ndiga jox tak xam nga murid dafa am ma riirandoo am mhm. ma riirandoo nag daanaka ñi si ëpp mooy jigéen ñi waaw kenn mënu leen a tere ci àddina lu ñu bàyyi li ñu sentir bëgg ko def mënuloo fexe ba duñ ko def ci ah. àddina te la preuve bés bu ñu na nga ko taal nga xool ci réseaux sociaux yi li ngeen di li ñuy wax di li may wax di ngeen. dëgg la dëgg xam a teree def seen mais ku ko ci def nag moom.

si dana waar xam nga ne kon am na nag ñoo xamante ne peut-être jaral nañ leen ko mais ak dispositif yi nii ñu jël fi mu toll ni duñ la dagg six mille francs mais ay dóor moo la siy fekk waaye solin moom solin moom mën naa yiw te rafet franchement wallaay wallaay mhm. merci beaucoup euh, laar yi mu doon maanaam si waxu wàllu Touba li ngeen war a sol ak li ngeen war a conserver seen i lekk yi ngeen fay yóbbu mhm. pour que kenn bañ a feebar coleen bi tamit euh, voilà parce que comme ni koy waxee murit ndigal sëñ bi nee na lii defee leen ko noonu mais du yëre wolof yëre wolof boo xam ne boo ko solee da ngay pàcceel sa cër yëpp nekk si biti loolu xam nga ne loolu nekkatul yëre wolof absolument voilà comme li ma koy waxee je répète encore mbirit ndigal sëriñ bi nee na lii lii ak lii la defee leen ko noonu comme ça mu kontaan ah ñaan yi gën a jolli gën a gën a baax lu dëgg.